d'abord su su la ci ressources humaines yi ci nit yi docteurs yi liggéey indi nañ fi docteur ay docteur yu xarañ yokk avant may commencé ci médecin orthopédiste li ñu naan orthopédiste ki damm damm yeeg yax yi benn fi amoon benn boobu dafa doyoon waa trop ci population yi da nga gis ku ñëw si 7 heures 6 heures du matin toog ba 19 heures ci ngoon te ki médecin bi du ko gis li ko waral mooy médecin bu xëyee des fois day jubali bloc nag pour opération yi day yàgg waaye mais malade yu mu opéré ba lu muy pare ba ñëw jublu ci consultation day métti waaw def nañu effort dem wuti orthopédiste léegi ñaar lañu bu kenn ki xëyee dugg ci bloc bi keneen ki xëy nekk ci consultation yi gynécologue yi gis nga ñaar lañu woon léegi yanaa cinq lañ juróom lañu juróom juróom plus nag ay DS yu ñëw di leen jàppale si ce qui fait que aujourd'hui au niveau de la gynécologie ça va beaucoup mieux nga ñëw ci cardiologue bi benn la woon léegi ñaar lañu ñaari cardiologue amuñu woon médecin radiologue rajo xam nga médecin rajo médecin am na Je suis mo fi nekkoon technicien bu géré jàmbaar trop nag di débrouiller def mais tey am nañ médecin radiologue tey été loolu aussi dañ koy saluer sans compter yeneen spécialité ORL bi am na fi dermato on a ouvert un service de consultation externe pour désengorger un peu SAE bi fiix tuuti bon yooyu yëpp mu ngi fi ak euh, l'ophtalmologie xam nga le bloc chirurgical le bloc gynéco tout ça c'est des avancées et l'hôpital est devenu vraiment l'hôpital nit ñi dal gis nañ ni amna amélioration biñ ci gëna neex nak moy cadre de vie biñ ñu moy espace vert bi nga gis nga ko ci biir hôpital comme ci biti ñu ngi ci neex bàyyeeguñu ah commencement rek la euh, mais écho yi ñu ci am leer na set na ñu développer espace vert ci hôpital nit ñi yaa ngi koy apprécier ndax par rapport ak li fi amoon avant parce que ci buntu ba auto fa lañ doon gaari ci buntu hôpital ci miir bi taatu miir bi bi ñëwé pour jëlé leen fofu gis nga c'était compliqué jàppante naa ñoom wax ci bëri woon na mais après comprendre nañu même kees ku orange monnaie bi fa nekkoon yëpp jóge na fa ñu ngi ñu ngi pavé foofu ñu ngi def espace bi def lampe yi mu takk loolu mooy jublu mu gën a rafet quoi nit ñi apprécier rajo mu ngi daw am na ay temps panono nit ñi am mais des na tuuti sax rajo bi def naa ministère dinañu indil rajo fii bu bees beneen mais bii mu ngi daw panono waaye depuis mu ngi daw depuis moo tax coow li wàññeeku nag bu baax scanner nag moom maire bi moo ñu ko dig maire bi def naa def nañu engagement monsieur le maire souvent dama ci wax ak maire moom mais engagement boobu ñi la jëloon la jëlaat ne dinañ indi scanner problème mooy local ñu ngi xam nga hôpital dafa xaw xat nag ñu ngi xaaral extension bi ñu wut local bu ñu ko def pour indi scanner bi parce que loolu aussi médecin ñoo koy demandé médecin ñoom dañu bëgg scanner ak euh, médecin docteur yu mag yu xare yi fi nekk léegi fukk juróom-ñeent docteur yu xare spécialiste ñu ngi fi sans compter ñeneen généraliste yooyu ak ak service yu bees ñu créé donc ñoom ñoo soxla scanner bi nee na pour gën a mën a euh, kii am na aussi su ma jógee ci ressources humaines mën naa ñëw ci matériel bi ci matériel bi am na écho léegi cardiologue bi dafa am écho médecin radiologue bi am écho gynécologue am seen écho ku nekk liggéey ak sa écho am na nag matériel bu am solo boo xam ne pour orthopédiste la li ñu naan amplificateur de brillance boobu day tax léegi dam yenn dam-dam yu metti yi kenn mënu ko woon def régler fii parce que am loolu matériel boobu moo manqué woon commandé nañ ko léegi mu egsi bu egsee sur dam wala kii yax bu mu munti doon mën nañ la jël fi en charge parce que médecins yi dañu ragaloon jël yoy en charge parce que lolu amul won amplificateur de brillance su dafa cher nak waye ak appui ministère de la santé vraiment ministère bi su ma nee ministère damay fii c'est vraiment ministère de la santé ak président de la république ñoo fi indi financement yépp ba ñu mën a liggéey liggéey am solo bi muy ñaan yalla mu jëm ci kanam aussi. booy si hôpital Youssou mbagan ciow yi fi daan dégg li ko doon waral mooy amuloon recette won recette parce que parce que nit ñi travail fi dañu xaw a té amul ñu woon recette bu doy pour fay ñep xam nga gis nga fi ciow parce que travail moom boo koy fay rek mu jël motivation ak salaire <laughs> en général coow du mën na bañ a bëri noonu mais dañ daan am toog fi jànkuwante ak ay problème salaire problème motivation yooyu yooyu dañ fi parce que recette yi c'est acceptable ni ñu indee médecin ñuy xarañ noonu lañ ñu yokkee euh, niveau de prestation yi day feeñ ci suñu recette tuuti bien que on fait beaucoup de social nag on fait vraiment refus fii dafa bëri social ndax mënul ñàkk aussi président daf ñu demandé ne fu ñu toll nañu dimbale nit ñi mënul te ci lañ dëkk mais malgré ça ak xarañte bi ak yi ñuy développé waxtaan bi ñu waxtaan ak euh, partenaires sociaux yi syndicats yi yooyu euh, recettes yi yokku na baax ba ñu ngi fay salaire comme c'est pas possible ak fournisseurs yëpp amul benn fournisseur léegi bu ñu yore xaalis ku ñu indi matériel ñu fay la ku fi liggéey ñu fay la te ñu ngi fay à temps déggatoo fi coowu salaire ay syndicats yi yëngatu voilà depuis gëj ngeen ko fi dégg bokk waaw loolu moo ko waral parce que dañu xool rek di waxtaan problème fu am ñu toog discuter moo wootee réunion ñu toog discuter trouver ay solution loolu moo ñu indi résultat yi te ñaan yàlla nag on touche du bois euh, mu jëm ci kanam tout ça nag population ñoo ko moom population ñu am nag ñu ngi ci jàppale suñu partenaire bi yoo xam mënuñu leen bañ a cité comme Eiffage bi ma ñëwee fii dem naa seeti entreprise yëpp de la place ak toutes les autorités waaye Eiffage daal moo fi def lu xarañ bi ma toogee ak léegi-léegi ñoom soo ko si ma yooyu daan nañ def avant ñu ngi leen di ñaanaan ñu ñëw nag bañ a bàyyi seen loxo mais Eiffage daal moom gàccee ngalaama ndax fay ne di ngeen ko gis gis léegi ngeen visité ko ñu ngi defal benn service SAU service d'accueil des gens bees takk au nombre bu yaatu boo xam ne dañ fa développé sax après quelques lits de réanimation après ñu wuti médecin anesthésiste réanimateur développé foofu quelques lits de réanimation tout ça moo xaw a manqué tuuti mais Eiffage gàcce gàllaama def nañ budget bu am solo ñoom indi seen i ouvrier indi seen i entrepreneur yëpp ñu ko ñun bâtiment yi lañ ci am te loolu lañu doon ñaan yàlla moo prochain lay pare bi ñu fi dem da ngeen visé ko xool liggéey bu am solo boobu